tey lu ñu indi fii tey euh, Sébikotane mooy offrir ay kit scolaire ay gone yi nga xam ni dañu nar a jàngi nekk CM2 te seen waajur seen loxo yi du toujours la egg seen digg gannaaw ñu bëgg leen jàppale jox leen ay saak ak ay livre ay jumtukaay yoo xam dañuy jàng bu ko defee ñoom dinañu mën a dem école xel bu dal ba pare am sens réussir ëllëg loolu moo ñu indi tey Sébikotane waaw loolu mooy concept événement bi tey maanaam ki nga xam ni sa waajur amul ak ki nga xam ni sa waajur dafa am olal boo leen jàngee da ngeen war yem même sens loo tax ñu bëgg ñi amul ñu ma jox leen ay jumtukaay ñu mën a dem école loolu mooy concept bi ba pare ñu jàng xel bu dal ñu bañ a manqué dara waaw loolu mooy SRDI 4 tey ñu si am mbégte di si remercier kii nga xam ni moo ko xalaat muy suñu coordonnateur Mindef Ndiaye bi nga xam ni moo créé SRDI Euh, madame, li indiwu SED yi moy madame, fi mois de mars ndax Adji Sarr ak Sonko mu gis na population yi dañ doon dal ci kaw Idrissa Seck c'est pas juste mu man parti bi responsable la si parti bi man si diaspora bi parti ngi donc man damay sama mouvement di sama président bu le faire ñi ko xamul dinañ ko xam li muy wax dinañ ko jàpp jotale wa population yi li nga xamni ne tam ni ngi koy mën population yi dinañ ci jot manam moy ndimbal bi ñuy def ni waye nak je souligne que initiative propre la nous sommes pas financés par le parti mais nous sommes dans le parti Rewmi avec des Rewmistes et nous travaillons que pour le Rewmi